Alaaji Lamin Camara dañoo dañoo dañoo dañoo baagin ndax KM ñooy raw nda West Coast ñooy raw nda Banjul mooy raw ah, su boobaa nag ñu bàyyee ko gars yi bés boobu noonu rek ku njëkk a ñëw rek ku gën a bari la rek di nga am price man mi maa leen jox price waaye nag ah, Alaaji Sehuna ah, Alaaji Camara yaa fo ñaamee ñaamera ko yaa moyle mu ne lafa jeeto nga la kumo moyle bare Alaaji Lamin fo yaa lon ka karantol le la mhm. ikantolu le korosi niŋa miŋ ke fana ye a kata kawo ñoŋo mm. ke so n be a yamarila doroŋ hani bi a sentolu korosi west coast region miŋ naa ñaameŋ a fana sa kata a ye naawo ñaama waraŋ a kata a ye sutiya wo la ate tambinoo la la bari a sa kata a ye sutiya la bari west coast region ŋa loŋ koye mina sembo ramatulaye and uh, mbe dembo kambi fana youth council uh, chairman west coast region ba fana kala mutanela kon uh, state opinion of the national assembly mena ka on the 28 la bekela la men kamara mi fana mu uh, regional youth and sports la chairman te afanse pare i uh, stand by another funding kel nyimu banku be ko wolte nyinte politique kuti nyimu banku be ko wolte wora funding ke wo funding ke anon ko ke ni ji gambia kono don wajibolem primary mabe ñin luŋoto ye la muyen na presidono meŋ fo la nda bo kadi yama amaŋ fonninkel la kumo fo ala banku doku wo banku doku kuwol kono yuruwa wo ku yuruwa fo doroŋ alon ko fonninkel le kadi wo pa han soto je hmm. woto fonninkelo wajibi len pour ŋata ŋan la muyen na kebala meŋ fola meŋ president jamete ok ay toña uh, la kon nag babu xam naa ne moom compétition la diggante Banjul KM ak uh, West Coast West Coast Region uh, ajaratu Bintu lan nga am pour ñaax si loolu honorable Seck mun a saane woon leen ne mhm. Banjul fa nit ñay sulee ko sax duñ ko xam ah. loolu laa leen pareel ah, nañ xam loolu ni buusi ndox yi naawee noonu la nit ñi naawee ah, waaw maa ngi wax nag suma constituency youth mobilisers yi ku mel ni Alaaji Daawda Dramé mm. Pa Cissé ak suma ayoon léegi aji yaama Njaay mm. ak suma jeeg société bi nga xam ne fa laa nekk mm-hmm. te Mariam Cissé jiitu ko mm-hmm. maa ngi won ne jeeg ñu ndaw ñi nañ pare mm-hmm. nañ ko daan defee pare rek seen t-shirt yi seen kaab yi te wengaloo ko gannaaw rek ah. waaw te takkooti rek ba dëgër ñu génn rek te xam ne bañu la xewleeti suñ bokkul rek suñ bokkul rek ne soos gi ñoragul mu ngi nii nag ramatulaa yow nag xam nga yëpp kon nag maa ngi wax ayoon léegi ne nag am na lum takku na na takku bi dëgër mhm. te xam na nag seexu naa ak ak Lamin Camara parel nañ ñu de mhm. na nit ñi suleeku waaw ñu ngi wax loolu nag constituency yu mobilise si yëpp nañ takk seen digga te xam ne nag ne baañu la xewle dañu fekkale si ni ñu pare nag pour dalal leen waaw mu ngi nii baañu la xewle kon nag mbokk yi xam naa ne baañu la xewle waaye nag ñu ne KMC ah, man dama foogoon ne làmba ñaar la waaye bii làmba moom ñetta la KM la Banjul ak West Coast Region kon nag daan am nga prize Ramatulaay Jallow na la jox prize te naa leen jox nag bu ñuul laa jox <laughs> ah su ma ma ma bàyyi euh, Alaaji Sewna mu mu wax tuuti si Joola ndax su mbokki joolaay tamit xam lan moo tax ñu toog fii euh, baraka Ramatulaay na saafe saafe ko baadam ko joolaak tout di ma fam njoomu na manjani mati Uh, uh, lupete ku député kolo la kanu mu kenu uboñali de député de lupete député pankuwo mbul yo uh, aramisay misay sunjate mite bon hulu koku bode wonkano san anu mañmi awati west coast region awati gambia mbu kan fere mu mat fafunak fulay fanu mañmi fulay kila e kumaya kumaya torop fan fan so bokana ka mende ka jantana ku badenga ku jolak mbiji puru december e mu jo mu matari fafunak abaraka ah abaraka uh, ah, honorable sehuna sane uh, ah, fu mu nekk nii baabu daanaka waxtu bi mu ñoo raw waaye ah, mu ñoo jamfa waaye nag ma bëggoon alaaji kamara mu lamin kamara mu wax tuuti rek si olof si soose waaw waaw mu ñu wax ko si soose mu gaaw because fu mu nekk time jeex jërëjëf li ma waxoon nga miin fo nun doron surwa kaŋo to mhm. ko ñi mu state opening of national assembly lati ti ngi manke parti kuuti ntol nak definitely uh, for the first time his excellency la regime kono nga lo mi mu state opening of national assembly ti bawo a keta ñaawo ñaa sa kunda do le njang bari nene bu kaaje ko ñi kuwo ye ko ñaama woto nga loo ne ko his excellency la accountability and transparency i mean for is the order of the day wo the same thing wala be national assembly bawo do ko nyin ni ba kela nka jele ka fundindi television olto momo e fengo fengo je ka fole yo ka bonga yele lungo la fo jandi ba fola ko bile ngam ba soron na fodi iyala wo mu kuleti mi anka ke lancena ma kuleti mm -hmm. wo dalilo kam ma fanan ni aje nata tv to jang fere mo be ye momo ye momo je ye carte yo fay mole ye carte yo fay munie wolle be national assembly nyinto so hanna tara ko itama fay ummo moye bari boto consequence ni to atela mu ila wodi o de la ila le fana mu yetaji yaaje ko amari sitale a ñanta sila sira mo minkan andung president on natale pour que national assembly ni address ka fo ko min nyanta kela anin ko min keta pour que wol be bondi nyoto mm -hmm. woto o kan to ka kabo banjun fo koyna sa fo kabo uh, katon fo koyna mo kana tu koma bawo na conséquence youth mobilize al mandi jan te wolla munte fana na bara malti comme ko kadi ba sidibe ñol fatu aji ya ñol modu njaay ñol jali suso ñol kata ke ba sisabe kansulo ya ñino la ñawoña bare ngalo ne ko fana his excellence la kuwa bu katu koma mm -hmm. abe yangatu la fabe mo detail la ban pray na ka mobilize ke bare ngo fana fana mbello la je bakel yo dalilo kam mbela fila pour banko fonding ke ol besi findi uh, na boss toyala permite alin aji fato jeng eh, toyala banko be findini bawo KMC na golbe findila le ah ñun doy ka fa ñu ne ko taka si rip mhm. waaw lii duñ ko bàyyee kenn mhm. ñun na président olon na national assembly long oto mbe fintila le baake ok ala baraka ah, taka si rip baabu fu mu nekk ni yaakaar naa ne ñu ne ku am kudu laka yoo la ne ah, kon nga nga nga gaaral kàddu gi balaa ma tàggatoo waaw foog naa parce que ñu doon wane ay aso bi last week wax nañ ko fi ñu ne jarul aso bi amoon nañ aso bi yu bari ah, bugga nañ nit ñu sol aso bi yooyu noonu. non comme comme ni nga ko waxee rek. lii sasuñ kenn aso bi. Mhm. lu waaye am rek cër koo sol nga ñëw si géew bi waaye am ñoo fi daje. waaw West Coast ñooy power house. Mhm. KMC ñooy University of Politics. Mhm. te waa Banjul la ñoo fekki. kon lii nag dañoo waaye nag emuñ foofu de ñu ngi laa wane Maodo Suso mu ngi basi. mu ngi pare pour ñëw. ela a ah, siaral ñoom dogal Cissé ñu ngi fa mhm. ñoom Mamburi mhm. ñu ngee ñëw elaaraal ah, ñoom si di sade ñu ngi fa ñu ngee ñëw North Bank nga am ñoom ah, député gouverneur kii nii Tafa Siri ñoom ñëpp kol nañ ñu ngee té te yan yaakaar naa ne doole gi sax ñooñu doole bu ñoo ñëwee soo dit nañ raw ci nañ raw baajul nañ daal man ma maa ngi taka nag ñu waaw ku win rek ma jox la kaw loolu ñu bam bamtuwaat rek di wax ñëpp ci rok bés bi 28 la mhm. ten o'clock si suba mhm. suñ ne ten o'clock nag dafa am ñu ni 7 o'clock ñu war nañu aga Banjul rek jël suñ ay toogu mhm. et 9 o'clock fekka ñëpp toog nañ ñu toog nañ suñ jiiti réew parce que président si ñëw ten o'clock yaakaar naa ne nit yëpp war nañ faa ñëw jëlee ko 7 o'clock si suba kon nak ah, lii lañu ñu waxtu mbokay ñu seetaan uh, state opening bi nga xam ne lañ war a def on the 28 of March uh, si fukki waxtu si suba waaye ñu ñaan nit ñi ñu ñëw uh, bala fukki waxtu parce que président fukki waxtu la moo dugasi kon nag ma amoon fi Babou honorable Babou Gueye Sonko honorable